Ah! Thank you. jàppale ma sax dañu am antu turandoo affaire bi métti si man quoi ba euh, may mujj obligé samay ay nit sama ay mbokk ak sama propre moyen bopp si laay demee ma dem di jaayante di jaayante di jaayante di jaayante di jaayante ba bëree combat bi ne sama turandoo na ma jàppale si jour bi la envoyé message Malick Thiandoum ne ko na ma recevoir man nag ama seen la recevoir ndoo si tëgër góor bi ma ñëw ma wax ko sama problème ne ko ba lenn rek laa la sant fexeel ba nga wutal ma salle bu may entraîner nga teg ma fi condition yi wóor bu ma amee combat nga jàppale ma fu ñu dégg bëri dañ ma fa dégg. et pourtant déggoon naa fi ay rumeur ay rumeur ay rumeur la nag. ay rumeur du genre euh, Bougane trondoom moo ko fayal salle musculation trondoom da koy viré soixante quinze mille francs chaque mois. Mm-hmm. man loolu. waaw loolu loolu loolu bi ñu demee bi ñu toogee man ak moom man ak moom Malick Thiam ak sama xarit bu ñuy wax Mam Nango. ci mm-hmm. bureau am ñu toog mu ne ma daf ndax dafa am benn benn genre kii boo xam ne kees boo xam ne da koy defal euh, néew doole yi mhm. léegi mu ne ma euh, di euh, wax maale yi ne ko naa indi sama photocopie d'identité mhm. dina fa dugal chaque fin de mille francs mhm. lagon 2 salle bi nekk lagon 2 ñu inscrire ma foofu chaque fin de mu di ko fay mais cent mille francs yi pour sama lekk la boo jógee antamen si laay dund ma defar kii yëpp jox ko Malick Thianou Malick Thianou ma déposé na ko weer dee ma woo Malick Malick ne ma déposé na ko après déggaatuma ko si la bàyyi waxa bu gan déggaatuma ko ba 17 eh, avril 2017 Cheikh Béthio tuddee ko cant gi 17 mhm. avril 2017 mhm. mu dem fa bima ñëwé ñëwee jour bobu non bima ñëwé ke Cheikh Béthio dañ ma ubil porte yi mhm. ma dugg ci biir fekk ko ci biir fekk ko saal bi fekk ak jiwel yépp tok mu tek fofu ay ndox ma ak si ubbil ma porte yi ma dugg ci taxaw dugg ci rek Cheikh Béthio egsi ne Bougane Gueye Dany eh, sama turon eh, sama soutien ak bu gan ngay Gueye Dany mbaru cantaaku ni Cheikh bi mo wax loolu de ma nuyu see euh, Bougane toog nii comme ni ma toogee nii si wetam. booba Pape moo doon directeur euh, Sen bi mu laaj ma ne ma ndax li ma la boole woon ak Malick Thiandoum yaa si jot ma ne ko non non ma mais pourquoi loolu affaire yooyu ne ma jël numéro Pape Dieng après nga woo ko ma jël numéro Pape Dieng Pape Dieng ne ma après ma woo ma. juróom maa ko génnee ba yóbbu ko pla euh, si otoom. nit ñi topp ko ma sécurité ba mu dugg si otoom. mu mhm. yëkkati vingt mille francs ñaari dix mille mhm. jox ma. ne ma am nga paas ma jël ma def sama bi ma ñëwee mu ne ma wool euh, Pape Dieng ma woo Pape Dieng mhm. envoyé ko message vocal mu lire tontu ma envoyé ko message écriture mu liir mu lire ko tontu ma mhm. ma woo ko téléphone mu sonné ba sonn jëlu ma bàyyi taxul ma bare mhm. euh, campagne yi ñëw élection yi fu ne ma toog fa ñu woo ma ne ma ñëwal ndax sa turandoo day politique ma topp bugaan fa nekk mu ñëw géejawaay jour bi mu ñëw géewaay maa ko dugal géewaay maanaam moom ñoo yëg ci tapis rouge bi amaatul mbindeef garde corps sax dañoo wàcc man ak moom maa jiitu maa ko moo jiitu ba topp si ginnaawam ba si kaw podium bi mooy mooy kii bu mag bi mu woote woon géewaay mhm. fu mu dem ma dem fa may def amul bëri amul bëri samay premier bopp laa jël jël sama taxi dem bu ma accès taxaw ci petam dem na ba xa ràññee na ma ay garde corps ràññee nañ ma ba ñëpp man ak garde corps am sax ñooy far mhm. bu mais bugaan mu sa defal Bougane turandoom dara. mais est-ce que tamit est-ce que tamit du question que ne est-ce que est-ce mësul def dara mu am fu mu jaar affaire bi àggul ci yow. non non est-ce loolu tamit. Seydina parce que bu ñëwee ba ne la est-ce que li ma la boole woon ak diw est-ce que jot nga ci. est tamit du question que ne moom def na li mu waroon def mais am na keneen koo xam ne moo waroon liggéey liggéey bi pour mu àgg ci yow defu ko. est-ce que Seydina daal xam ne la Bougane benn employé mi yóbbu ko ba di ko mu koy defloo dara mu mu mu teg leneen. kon daal Bougane na def effort moom. bu defee la ko war mhm. moom la war bu ko deful moom la war ndax man maa ngi def la ma war te man xam naa ne bu ma puusoon teg ma loxo tuuti tuuti mhm. barki naa Mohamed laa lay wax télé fu ñu dégg mbër nañ ma fa dégg parce que yow problème de moyen nga am problème mu moyen ndax maanaam bëri maanaam damay bëri bugaan moo metti bugaan laay bëri yow xam nga léegi yow li ma lay wax xam naa je sais sax da ngay defaat da période boo xam ne Bukan la break bukan lenyi break ñuy bëreeg duñ am jàmm. Mhm. wallaahi ak lu ne lañuy dañuy jàpp ne sax Balla Gaye Break, break, mhm. bëreeg. wala Bombardier wala Modou Lô. billaay wallaahi ah, day break break bëreeg sama combat mooy mais fii ñu nekk kër gi kër kan la kër maire maire. fii nii. Mhm. mën naa see wax mënu ah. sama yaay maire Fat Faye la. waaw doomam. sama xarit muy Cheikh Dégol. may ànd ak moom muy sama Cheikh. seex Dégol yàlla boole ma ak moom ñu dund lu rafet combat bu ma am sama combat kéeli lim si fere si xaalis ëpp na cinq cent mille francs def si xaalisam poil protéine yëpp moom mu ko jëndal mm-hmm. fay saal taal oto di ma yóbbu musculation mm-hmm. yaayam bay ma kër gi du ma fi ab jàmm man doom lañ ma fi jàppee bi ma ne cëpp ñëw fii dañoo jàpp sama loxo animaux fii mu jàppale ma di booba léegi nag bàyyiwul bàyyiwul ma di ko sant di ko ñaanal lu mën ren bu déwénee man lu ko raw. d'accord mais mais yaayu Cheikh ci boppam maire bi euh, dafay politique. maire bi day politique. Mhm. Cheikh Kanté lay jàppale. Cheikh Kanté ku ko xam xam ko Cheikh Kanté. Mhm. yàlla dimbale ko mu nekk jigéen du mën góor nag. Mhm. di liggéey bëgg njabootam. bëgg ay mbokkam. di jël ña xam nag di ko dimbalee nit ñi lu nit xam ak lu nit xamul barke Seydina Mohamed koñ bi mën nañ maa seede muy nit ku ñàkkee ki ñaan nit ku baax maire bi maire Fat Faye maire Fat Faye bu ma amee combat mhm. wallahi al asim da siy def ba def loo mënut doomam def si ba def si lu mënut gis nga bagage yëpp dañoo jël kër gi génne ko xale jigéen yëpp génn tey fii nee la doonu fi jaamul mhm. kii nii en sama doom la mhm. doomu Seydou Walla mais yàlla moo def mu takk ma ba nga xamante ne fu ma jëm topp ma kon fii doon too fi ab jàmbur mu fi defee interview fii laa ko ah. war a defee uh-huh. fu mu war a defee interview fu dul fii hmm. yàq naa ko kon maa ngi koy ñaanal lu man rande bu déwénee mu man lu ko raw ci barke Seydina Mohamed yàlla dimbali ko guddal fanam hmm. wéral cër ay cëram hmm. ba xam ne maanaam daal amna yene ci si dal tay vraiment Buma ma amee wallahi al azim da koy métti da koy naqari naqari ay mbokam duñu lek duñu nan buma amé bu ma ndam dañuy bëgg kon sama ndam moy sama sen ndam mhm. sama defet moy sen defet ba di len wax ne len ma ngi len gën dégg samay loxo rek mhm. ñu gën ma jappalé gën ma ñaar xamné man dara d'accord euh, gan fan nga jëm adversaire ñan la adversaire bari nañ ñu man ñi wara bari salam bari nañ comme kan ak kan, kan? xam nga pour l'instant xam nga gan li olof Ndiaye naan il faut récupérer le meilleur pour Bougane arrière na. Mhm. ñëw ne diw laa war a bëri diw laa war a bëri dañu naan Bougane Bougane maa waajal. non mënoo waajal kenn. waaw mais gannaaw nag mais mbër bu toll fi nga toll yow instant bi ku la fayoon tey ku la fayoon trois cent mille nga wuti yeneen yeneen cinq cent mille teg ci. waaw loolu daa man loolu leer na ma. mais xam nga man euh, Seydina. Mhm. ñaari tànk laa yor. bii mhm. si arène bi bii si mbapat bi. bu mbapat bi fayul arène bi fay. barki démb soo ko laa jógee demi final ñàkk ñaari nag. poids lourd. ma ñëw bañ ne gannaaw suba la ñu um koor mhm. sookoon laa jógee ba deefal ñaar nag poids lourd laa ko euh, euh, euh, laa laa ko laa lañ ma génnee demi-finale mhm. mhm. kon maa ngi si mbapat bi maa ngi si arène bi si ñaar yëpp nag laa man ñaar yëpp bu gaan bëree mbapat nga yaakaar ne mbapat rek la man bu bëree arène nga yaakaar ne arène dong la man mais instant bi moom prêt pour le retour mais pare naa pour le retour mais gannaaw kale naa ak promoteur waaw ba ñu confirmer man ak moom si adversaire ba ci côté adversaire bi la defee ñu am lu ñuy réglé

laama ji ba mu daj ya yaa wax loolu maa wax loolu su ma la laajoon juróomi mbër yi dàq bëri ci laama ji Balla Gaye 2 nga may jo Balla Gaye moo dàq bëri ci làmb ñëwal ak kan juróomi mbër juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji waaw Balla Gaye Sa Sa Thiès troisième ñëwal Bougane Gueye Dany Bougane Gueye man man non yow yaa ngi loos yow yaa ngi loos non non non non non non yow bokkoo ah, ah, ah leer aka moo leen non mais yow bokkoo doo lim sa bopp. danaa lim sa bopp yow maag yow ñoo ngi loos. si cinq personnes yi si laay boole sama bopp. déedéet non yow man naa laaj Gambien juróomi mbër yi daa ko bëri ci làmb ji. mu lim lim boole ci bugaan mais yow doo lim sa bopp. man damay lim sama bopp maag yow ñoo ngi loos. yow maa ngi ñoogi ñoo ngi loos. waaw man si cinq personnes yooyu laay lim laay dugal sama bopp. ah da nga fay dugal sa bopp. sama si laay dugal sama bopp kenn dàqu maa bëri si àdduna. Balla Gaye 2. Sa Thiès Bougane Gueye ak kan ñëwal joxaan ma yeneen ñaar xool xool kenn amut booy yow. Tyson de Tyson 2. bu bu tàcci nga. da nga koy dugal ci juróom mbër yi dàq bëri ci làmb ji. waaw mu des benn. mu des benn ñëwal. Aline Seye numéro de Aline Seye bu waalo. waalo ñii ñoo dàq bëri ci làmb ji. waaw maa laaj nga tontu en avance. waaw euh, rakk ji. Mhm. bi nga dalee seetaan làmb ba tey ban combat nga dem stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog télé bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko fàtte. mu marqué euh, ba mënuma ko fàtte. waaw ah. mooy lam ju rëy yi ñu fi amoon rek. ban noonu Yékini Balla Gaye 2. Yékini Balla Gaye 2 lu ñu fàtte. en 2012 en 2012. Yékini te ah, te roi des arènes bi. waaw.